jërëjëf euh, mbokki euh, internet yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog ñeen dañu seetaan fii ci Colobane saalum ci daaray Alhaaji Fallou Bousso Ousmane euh, mbokk yi ñu ñëw fi ngir li nga xam ne moo fi am muy lakk goo xam ne mi ngi bàyyi ko ci doomu adama mu nekkoon defoon fi daara joo xam ne fi la nawet njaboot gi nawet fi doon fi liggéey bi liggéey bi noppee nag bañu fab seenum ngooñ def ko ci néeg yi foofu fi lañ ko taale mu mel ne kon ngooñ mi lépp dafa tàkk ba jeex gis ngeen itam baraag bi ni ko jàkkaar dañ koo dagg xam naa am na lu ñu fi doon seet gis ngeen itam projecteur bi fi nekkoon dañ koo buddi dindi lampe ba loolu nag ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni bii seere la ci wàllu liggéey bi ñu bëggoon a xam rek lakk gi nañ la demee. jërëjëf sëñ bi ñoo ngi sant yàlla di sant di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba bu baax comme ni nga ko fii daal di Alaaji Bousso la wax dëgg yàlla muy jàmbaar joo xamante ni dafay ñëw ñaari at ci ren mu fi doon daan doole di fi jàngal ay taalibeem ren bi ñu jàngalee ba pare bi mu eh, noppee ci mbay mi nag dañu woon day toxal daara ji yóbbu leen fële ñu gën a sàkku xam-xam ba nawet ñu dellusiwaat bi mu ko defee jël na gerte gi waaye ngooñ mi da fee defoon ci bataas suuf huit mètres bàyyi ko fi ah, bi nu demee semaine rek lan ñëw eh, dagg daara ji xam naa dañ fi doon seet ay matériels yooyu mais gisuñu ko fi waaye ngooñ moom heureusement muy fi ñu bàyyi fi woon fi benn projecteur ñu dindi projecteur bi dajj ko yóbbu ñu tegaat ci trois jours nu ñëw fekk ñu taal ngooñ mi ba mu jeex tàkk muy loo xamante ne bi nag lu ñaaw ñaawlu la vraiment bëgg euh, yoon def ci liggéeyam ñu seet daal fexe ba jëf ju ñaaw ji ñi nga xamante ne bi def nañ ko ah ñu fexe ba teg leen loxo ndax lu ñaaw la te sëñ bi wax dëgg yàlla moom kenn xamu ko ci lul ci jaamu yàlla ak liggéey ba taxoon mu ñëw ci àll bi. ndax euh, bi mu amee wax ngeen ko yoon. waaw wax nañ ko yoon man bi ma koy wax dafa fekk boobu ma génn mais heureusement ci laa téléphoné gendarmerie ñoom itam ñu ñëw mais bi ñëwee ñoom wax di yàlla ni ma gendarmerie waxee taxul ñu def constat bi ni mu waree ndax ñoom doo ñëw nee nañ fekk nu fi kenn moo tax ñoom mënu woon def constat bi loolu tam moom lu ma jaaxal la waaw. boobaag léegi waxaatuñ leen dara. waaw boobaag léegi tey bi ngeen waree ñëwaat fii demaat ñoom ñu ne ma ah euh, ñun demoon nañ fa nu fa kenn mais man li ma waxoon rek mooy daal ji bi ma leen di woot nee leen kenn nekk parce que booba euh, taalibe yi dem nañ pour sàkku jowaat feneen xam-xam ci yeneen daara yi a ah, ñu tëjoon daara ji noonu kon nag kon bu ñëwee dun mën a fekk kenn damaa kon bu ñëwee ñoom dañoo waroon def seen constat bopp rek waaye war noo xaar sax naan leen nangam ak nangam comme xamoon ne daara ji kenn nekkul. macha allah kon mu mel ne kon euh, ñi ngi toog ak waa commune bi ñoom it ndax euh, lii biñ ko yëgee am nañ ci taxawaay ak kañ lañ ko yëg. Euh, jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal ñëpp di nuyu sëñ bi nag di ko masaw ndax lii lu métti la ñëpp ko xam nawet ak mbay nu méttee ak xam aussi ren nawet bi nu mu demee doyee waar liggéey ak ngooñ nu mu jafe ak lépp lu ci aju rek ak la lu métti la ñu ngi masawu sëñ bi loolu la laay njëkk wax si turu maire monsieur le maire nga xam ne moo ñu ilif ñun ñëpp di ñu yebal. Euh, commission bi nag ñu ngi ànd man Assane Ka ànd ak ku ñu wax Mor Jabel Loum euh, ñun lay wax dëgg yàlla dañ ko yéex a yëg euh, mbir mi moom daanaka yéex nañ see jot. moo tax aussi bañ ko yëgee it ñu ne ah kilifa yaa ngi ñëw ñu ne dinañ xaar ñu ñu dañoo war a ñëw lu jëm bi ñu constaté ko ñun aussi dañ ciy doy seere Euh, bañ ko yegee nag euh, lu mu gaaw gaaw woo nañ euh, commandant brigade mais lim ñu wax def nañu man bu may def constat il faut fekk fa nit parce que bu ma amul nit mën poser question mën am ay éléments ramassé ko day jafe ci man. mooy nag loolu moo nekkoon jafe-jafe yi nga xam ne am na ko mun aussi gars yi bu ñuy ñëw dañu xaw a yéex na ko yëg parce que buñ teeloon yëg sax dina ko teel wax kilifa yi mel ne sous-préfet loolu la jokkoon nañ ci. voilà ba ngeen ñëwee ñun aussi tant que représentant commune ñëw ànd ak yéen constaté ko. mais comme li njëkk wax moom mooy dëfal sëñ bi ak masawu ko di wax aussi comme ni ko aussi di waxee lu mel ni moom bu amee rek dañu war a ñaan yàlla yoon wër ba am ki nga xam ne moo ko def ndax lii la ñuy wax crime lii crime la ndax yàq dund yàq liggéey tooñ la ak crime la donc li ñu wax nag bu fekkee am nañ ci ay début de preuve ak lépp lu ñu ci am euh, gendarmerie moom xam nañ ne wax dëgg yàlla gendarmerie sénégalaise ñu xarañ lañ bu ñu amee bunt rek jàpp naa ne mën nañ def seen i enquête ba gis parce que yi def lii euh, mën na def moo tax aussi boo gisee crime ñu koy wër kii njëkk am day sonn waaye dañ war a jaar ci moom pour fagar pour keneen kon nag loolu aussi ñu koy ñaan gendarmerie te wax dëgg yàlla liggéey bu ñu def souvent dañu siy jàppale jàppale ne bi aussi au nom de la mairie au nom de la commune ñu ngi ñaan gendarmerie defal ñu si enquête bu mucc ayib ba loxo ki nga xam ne moo def wala ñi nga xam ne ñoo def lii en tout cas loolu aussi lu xaw a jafe la lu tiis la aussi ndax nawet dafa métti yéen aussi ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bi nga xam ne moom koy def ndax lii lépp yokk yaatal la rek ak wane réew mi fu mu toll tey dara du umpe kon nag aussi ñu wax sëñ bi ne def ñaan moom aussi baatin ba ko yàlla may yàlla dimbali lii ñu xam li ko def ndax lii lu garaaw la ci commune waaye te ñu ngi koy ñaawal bu baax. ndax euh, yoon mën nga ne jox ne benn jeexital boo xam ne gendarmerie mën na cee sukkandiku am na fi. waaw loolu nag euh, xam naa ne dana xaw a jafe tuuti ndax ñun liñ ci am ci pour sukkandiku mooy bi ñu ñëwee daal gis nañ lu mel ni mbaxana buñ tegale mu mel ni waa bi mu defee jëy ji ñi ko def génn nañ di daw bi ñu génnee di daw ci lañ for mbaxana boobu aussi fekkoon nañ fi ay tànk mais nag comme li ñu wax rek lu ko waroon euh, photo mais heureusement photo wuñ ko mais loolu rek lañ ci am ci ay jeexatal ñaari mbaxana yu tegaloo yooyu daal gis nañ ko ci moom mu wóor ni ak i tànk yoo xamante ni leer na nun lii jëfi doomu adama la donc loolu moom firnde la jërëjëf mbokk yi mooy li xew fii ci daara yi sëriñ Alhaaji Fallou Bousso Ousmane fii ci Colobane Saloum muy lakk goo xamante ne bii eh, ni ñu ko waxee ci doomu aadama la sababloo ñu taal ko ginaaw boo xamee ne dajji woon nañ baraag bi doon seet ay bagages fekkuñu ko fi ñu tegaat ci ay fan ñu ñëw fekk ngooñ mi tàkk ba jeex takk ngooñ moo xamante ne bii baraagu 8 mètres la nekkoon ñu duy ko ba mu fees tàkk yéen a jàkkaarloog doom bi loolu moo taxoon ñu doxantu ñëw fii ànd ko ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.